te ku xam na ni. ñeent fukki guddi. ñeent fukki guddi. ci la sunu boroom. ci la sunu boroom. di leeral mbir yëpp. di leeral mbir yëpp. tey nag. nee nag. moom rafet nañ ci moom njort. nañ ci moom njort. ñu fas yéene taasu ci barkeem. ñu fas yéene taasu ci barkeem. ngir yàlla. jéggal ñu jéggal ñu yërëm ñu yërëm ñu bañ a topp suñuy dossier bañ a topp suñuy dossier bañ koo xool bañ koo xool bañ koo lañ ba bañ koo lañ ba dugal ñu rek dugal ñu rek ci ahlul balaa ci ahlul balaa laysa lahum laysa lahum miisaanu miisaanu wa laysa yunsharu wa laysa yunsharu lahum diwaanu lahum diwaanu yàlla nañ ci yàlla dugal huwa ruuhu wa rahmaanu kaana munaadiya وكان نبيا بالنبوة عالما وآدم بين الماء والدين ساميا أول من لبى ألست بربكم ينكي الله أحمد هو الروح والرحمن كان مناديا ما شاء الله في وقت واو نكتوبا نياري دولة لنو fi dawlatin te warul wallahi ndey ku xamul kuy wax ci waawoon ak Tuuba ñaari dawla lanu fi dawlatin te warul wallahi kooko xamul seen dawla jiitu na tey loo bañ bañ du fi jot waxal ba xottiku yaa yaa xëttu xol yow doo jullit doolu xam loo ci doon di wax soo bàyyiwul lii nga ne yàllaay tuuba ciwaawoon ñaseen jaamal canaba kasaaka laayeen wa njaasaan koo ci gis ndax rabbayta at shatta allam tar waree ba xam nga dellu teg xam ne kenn fitalul kon amal tawum bi siyaasatin bi an tafaw wa wasalu lil ali mafdal li gaañi mosal barakallahu fi ñu dellu sant yàlla bu baax mi ñu may bis bu tedd bii ñu doxaat ba fekke ko ñun ñi fi des fekke ko du sunu jàmbaar ndax am nañu ko séqalan ñu dem ñoom ñëpp bàyyi ñu fi mu mel ni ci loolu moo sababaat bis bii tey sëñ Basiru Xaadim Awa Ba xam ne am na ñu ko séqalan te njàmbaar taxul nun nu des fi am kàttan taxul ñu des fi mu tànn ci ñooñu dafa tànn ndax ku bokk ak réew mépp booy def lu baax dangay tànn pour kenn ku ne am koo jokkoon yóbbaale ñu ci des mu mel ni moom dafa tànn tey ci mbooleem kilifa yu baax yi ci réew mi te bàyyi koo fi te ami njaboot yu jokk ci ñoom mu def lii fàttali ko ko seen diggante ak li ñu liggéeyal yàlla ndax ñii tey nekk ci affiche bi ay nit yàlla lañu yu piir waaye it ay nit dimension lañu waaye moom mi ko defit nitu dimension la ndax tànn bi juumu ji kon ñu ngi nii ñu fi daje ñëpp waaye nag jiital ci nuyoo bi tàmbulee ko ci moom mu yóbbul ñu ko ci suñu maam ju baax ju tedd ji ca Touba sëñ Mountakha Bassir borom mbég mi xam ngeen ni sëñ Moustapha Bassir sëñ safaa Bassir ci boppam kii ñu dunde bis bi tey moo doon buntam diggante Touba ak Tiwaawan sëñ Pape Malick mii mu ko tudde tey moo doon buntu Tiwaawan ci Touba kon juumul ci li mu def kon yàlla na ko yàlla fay yoon wi nu mujjee ci sëñ Muntaxa dafa toog ci këram lañ ko fekk fii ci kolobaan ñuy bëgg a ubbi Masaalikul naan mu téye sëñ Pammaal yi téye loxoom wax ni ko yow de boole nan lu yàgg te xamu ni woon lii dina ñëw boole ci ñoom ñaar ku ne téye sa loxo morom di ree rek ba mat fanweeri minute ma xam ne ñaar ñu yiw ñoom la yàlla dajale tey jamono muy sëñ mun taxa ak sëñ Pape Malick Sy kon tey jii amunu kàddu wax ndax musóobe mbàkkeeg musóobe bu ñu waxee waxal nañu si waaye waxal lañu Sénégal yëpp Serigne si Tidiane Sy 81 la dem Touba bu ngeen fàttalikoo li ma lay wax moo jëkk af rajo Touba mag jumaa yi Touba di ca ree mu ne ah tey de bisu ree la ndax bisu mbégte la sëñ Abdoulaye ni ko sa kër loola neex nga def keroog la wax ni bi ma xëyee ànd naa ak ñi àndal ñëpp kilifa yi ma àndal sëñ Mbaye Mansour bii doon xalifa bi ci la bokk tey ànd ak sëñ Maodo si balaa jëb ànd ak sëñ Pam Malick si ànd ak sëñ Maodo ture ñoom ñëpp ñu ànd fanaan ak sëñ Pam Malick ci Touba bi ñu xëyee. sëñ Cheikh li mu jëkk a def mooy am na lu mu dindi ndax barabu maamam la jëkke sëriñ Touba Xaadimu Rasuul siyaar bi mu paree dem ci Cheikh Mouhamadul Moustapha topp ko topp ko topp ko ba ñëpp mat macha allah mu wax ni liñ fi defan dindi naa ko tey dañoo waxan ni taalube tiijaan du siyaar taalube murit mu ni loolu dindi naa ko tey mu teg ca ni ki tëdd fii ci barab bii moo yóbbaale ñépp géew muy Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul kon sëñ Basiru Xaadim Awa Ba lii mu def wat ca watit la fekk na ay waajuram yi tedd yi di ko def te dama wax ni nit bu juddoo cim réew di doomi kilifa xam li xew ci réew mi lu mu def ci mbaax jàngiwu ko da koo mokkal moom sëñ Basiru Xaadim Awa lii mu def da koo mokkal du lu mu jàngi kon yàlla na ko yàlla fay sëriñ Pape Malick mi mu ko tuddee nag li tàmbalee ci xalifa général di Tijaan sëñ baaba Sy Mansour kontaan na ci ndax yëgal nañ ko ko mboolem ku bokk ci famille bi yëgal nañ ko waaye particulièrement famille kontaan nañu ndax sa waajur jóge fi tey ñu ni ñi koy célébrer di ko defal hommage di ko ñaanal sa waa kër maam sëriñ Touba sa waa kër maam Alhaaji Mouhamad lamin Baara te ku ne xam na lu mu représenté ci réew mi damay wax ni ku jàngul mbaa duggoo tuuti ci yooyu yu ñuy def doo ko xam sax waaye boo duggee tuuti ci mbindam daa xam ban façon nit la woon kon suñu jëlee cër bu toll nii jox ko ñëpp ñu bokk ci réew mi ñoom dañ ni li leen jëkk a kontaanloo mooy ñëpp lañ ko jox boo joxee sëñ Pape Malick jox nga ñëpp te sëñ bi jox na ko ñëpp kon nag yàlla na ko ci yàlla defal ndam li mu ci mébét yéene ko ci ndax mébétu ci lenn lu dul réew mi am jàmm mébétu ci dara lu dul kilifa diine yi kër gi kër yi yëkkati mébétu ci dara lu dul tarixa yi jëm ca kanam mébétu ci dara lu dul lislaam jëm ci kanam kon nag yàlla na ko yàlla fay kon ñu ngi sant ñi fi daje ñépp di wax ni suñu kàddu mën nañ koo bañ a jël ndax sëriñ Pape Malick dañoo ànd sëñ bi fekke na ko ca journée alxuraan bi ñu tudde sëñ Babacar bis bu toll nii bi ñu réunion ñu waxtaan ak moom ñu ne maa ah, dafa am ku war a wax ci sëñ baabakar lan mooy meloo ma leen ngeen may ma ma tàggu sëriñ bi ma woo ko wax ko ko mu ne ma dafa mel ni tee ngaa bàyyi ma ma wax lépp rek ndax réew mi ñi fi jëkk doon samay maam sëñ Touba la bi mu agsee moom la ubbee wax ci ba pare doog a tudde ki ñu wax bis bi muy sëñ Babacar Sy waajuram kon su ñu ñëwee fii fekk fi ahlu Mbàkke fekk fi kilifa yëpp wax waruñu ñun dañ leen a war a déglu ndax su ñu waxee waxal nañu ti Tiwaawan waxal nañu Njaasaan waxal nañu Laayeen waxal nañ ñi ñu ko tudde ñëpp kon yàlla na yàlla fay ñëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di la xamal ne sëñ bi ñëpp bég nañu réew mi bég na diine ji bég na lislaam yi bég nañu tariixa yi bég na yàlla na yàlla bég ci yow bég ci mboolem ñi ngi ko bokkal ci sa barke maam ju tedd ji nga tax nga ko yëkkati te àggale bés bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulilah inna waliyallah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ngi sant yàlla subhanahu wa taala moom mi wax ci alquran ne na ngeen ma ragal man mi nga xam ne bu ëllëgee dinaa leen laaj ak bopp julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mi wax ne ak bokk yàlla nee na mi ngi ko xare ci turam yi ñuy wax arrahman mu ne ku ko jog dina la jog ku ko dog dina la dog bu ëllëgee wala ayaas billah mu dellu waxaat ne ku gëm yàlla gëm yonent bi gëm bisu pénc del jokk ak bokk sunu borom bi subhanahu wax ne innama al muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum mu mel ne jataay bi mooy dëgg dëggi islaax kon sëriñ basiru fa jazakallahu anna jazaa man yasa saiyan maskura ci sant Serigne Touba bu baax a baax a baax suñu yaakaar tey ak ëllëg di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba naal yi mu naaral lislaam naaral ko maamam ju baax ja sunu baroom may ko wér ak tal ba mu yeggale ko ak sagoom ca ñu ànd ko ak moom ñun ñëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadul Moustapha xalifatu Cheikh Mouhamadul Amin mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba yéene ji mu am ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mu yeggale ko te nu ànd ko ak moom ci turu Cheikh Mouhamadoul Basir le président coordonnateur national du journée Cheikh Mouhamadoul Amine ak mboolem kuréel gi nekk ci gannaawam mooy wax ci seen tur di woo mbokki jullit yépp mbokk yi taalibe yëpp rawatina waa kër Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbàkke ñi nga xam ne bis bi seen bisa lii muy def ñoom la koy defal fii mu toog ñoom la fi wutu sëriñ ba siiru wax ne ci biir woote boobu am na ay bokki boppam yoo xam ne nii mi ngi leen ciy jiital ci woote bi ndax cër bi ñu am ci bis bi ndax bis bi ñu koy def ki ñu koy defal seen wayjur la muy Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacké la ca des muy kóllëre yi nga xam ne moo dox seen diggante ak ñoom ca ñoo ñële su ñu tuddee ku mel ne sëriñ Abdou Samad Souaïbou dina mën a yóbbaale ay bokkam yépp ak suñu bàjjanu bokk bi muy soxna maam bu sa baali di suñu bàjjan di suñu wayjur ak kóllëre gi dox digganteem ak sëriñ Basiiru ak mbooleem ñi ñu bokkal sëriñ Tuubaa gépp sëriñ Basiiru nee na mi ngi leen di woo ci bis bii nga xam ne seen bisu bopp la ndax seen bisu wayjur la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yu tedd yi dégg sunu kàddu fu ngeen mën a nekk ñu di leen woo ci bis bu màgg bis bu tedd bis bu ñu di ko defal jëmm joo xam ne kenn la ci jabootug Cheikhul Khadim ak Cheikh Mouhamadul Amin ibnu Cheikhul Khadim kookii nag moo taggoon suufus Touba di ko kañ ba di ko xamal gan gii nga xamante ni si moo ñibbi si ci dëkkam muy Cheikhul Khadim naan ko busraaki yaa arda Touba al yawma ninti ala kulla al bilaadi bi haasa cheikhi kulla wada haasa al Khadim alladi najal muridina min كيد wa فهاز سؤل والأمل فمثل ضيفك لم يصفر به بلدا ما يرى بلد يبقي به بدلا di wax suufu Tuuba ne ko na nga sant te xam ne kii nga am kat muy gan gii di Seexul Xadiim senn suuf su mel senn suuf amul gan gu mel ne moom kon nag ñun yi nga xam ne suufu Tuuba moo am kenn koo xamante kenn amul ku mel ne moom ñun ñu am ka doon wax wax jooji di Cheikh Mouhamadou lamin Bara war nañoo xam ñun itam ki ñu am kenn melut ne moom di doomi Cheikhul Khadim ak doomi Soxna Aminata Lo Cheikh Mouhamadou Lamine moom mii nag bi mu feeñee mooy ki nga xamante ne sii li yàlla wax ne aljana li muy neex neex neex sama yërmande sama sama ngërëm moo ko dàq nga loolu yàlla borom subhanahu wa taala moo ko yaxal ci alquranul karim wax ne aljanna li muy neex neex neex loolu li muy neex neex yàlla borom subhanahu wa gërëm la moo ko dàq te keroog bi Cheikh Mouhamadou Lamine feeñee la Serigne Touba woo mag ñi ne leen am ngeen gërëmul yàlla am ngeen gërëmul yonente bi am ngeen sama ngërëm kon nag ñun ñii ñu bëgg a dugg ci ngërëm loolu ñu ànd ak le coordinateur national Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne xaw ba ci turu mboolem seetaati Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yëpp li ko commencé ci kër Cheikh Mouhamadoul Hafiz muy Serigne du baara ba ci kër Serigne Khadim Xawba mboolem fu fi set nekk ñi ngi lay soññ nga takkaayu jëlaat li nga xamante ne si mooy sunuy ngànnaay te loola du lenn lu dul liggéeyal sunu maam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ci bisam bii nga xamante ne si moom lañ koy defal ci suuf sii nga xamante ne si boo ëllëgee yowmal xiyaamatul akbar géej gi tiitaroo seex Serigne Touba ma fa julli woon waaye bu boobaa suuf si ñu toog suufu Ndakaaru ñoom dana puukaréew bis bu mag bii nga xam ne moom la ñu defal Cheikh Mouhamadou Lamine baara kon nag ñi ngi woon ñëpp bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu kenn rawatina daare alquran yi ak mbooreem dawaayir yi nga xam ñoo nekk ci kër sëtti Serigne Touba yi ak kër doomi Serigne Touba yi wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi al axyaar wa sallim tasliman kasira ñu ngi julli ñu ngi commencé suñu waxtu sabbal suñu borom mawlana tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di feddali sunu taalibi ci ma Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul bis bii nag li ma koy commencé ndax bisu wootee la ak yëgle te kii ñuy woote dafa am jeexit yu mu am ci lislaam ak ci mbokk gi ak ci tarixa bi kon liñ koy wooteel di ko defal ci bis bi yëpp dafa war a nekk loo xam ni yëpp day dellu ci lislaam day dellu ci yàlla dellu ci sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dellu ci ndigalul ak digle sëriñ tubaay ba nga xam ne lépp luñ fay wax ak war ko faa jëf ñu am ci ngërëmul suñu borom ba nga xam ne képp fi ñëw boo ñibbiwaatee da nga am ngànnaay ak loo mën a jariñoo ba déwén ndax kat kuy woote ci ku mag war nga faa wax wala nga def fa loo xam ni suñu borom dana gërëm hmm. maa yalfizu min qawlin illa laday raqibun atid inna nahnu nu inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin inna al mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaaqikum summa turaduna ila alim al xayb kon loolu loolu ñu fi wax ci alquran karim yàlla dina avertir kon nañ fexe ba bu ñu jógee ci bisu sëñ baara boobu ñu jógee fa am fa ak ragal yàlla am fa xam-xam ci yàlla ak lislaam ak ndigalu sëriñ Tuubaa tey wax ci njabootu sëñ baara gépp di mbokk yëpp ci bés bu mag boobu di sant sëriñ Muntaxa di ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ak Cheikh Mahamad Cheikh Ahmadul Maxtar ak Serigne Moustapha bi nga xam ne mooy xarit sëñ Baara kon nag bis baaw ngi noonu yàlla nañ ci dugg bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin ci ñaan yàlla képp ku fa ñëw yàlla gën laa dolli ak ngëm gën laa defal xéewal barakatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke Sëriñ Tuubaa wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu nga yàgg baax sëriñ Cheikh président fédération daayira yi Sëriñ Modou Seck mi nga jiite mi jiite daayira murid ya fa nekk yëpp mi ngi ci mbooloo mi di ko waajal Sëriñ Mor Mbaye mi jiite daayira Miftaahu Nasri mu Sëriñ Basiiru Mbàkke xarim aw ba ca Kébémer mi ngi fi mbokki Kébémer yëpp seen bootee nga ñu ngi leen soñ soññi bis bi di leen wax ni Serigne Bassirou Serigne Serigne Serigne Serigne Bassirou bis bi seen bis la kon ñu ngi leen ciy soññiwaat bu baax a baax. Euh, mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax daam lu ñuy bëgg a rek comme alhamdulilah rabbil alamin ñu toog ba léegi télévision yeeg euh, lu mel ne seen YouTube yi yëpp ñu ngi ko def en direct ñu bëgg leen xamal ne journée bi du lii rek appel bi rek wala jëmmi journée ba waaye ñun ñu yor wàllu. comité maanaam d'organi maanaam communication boobu ak culturel bi mën nañu wax ne depuis semaine passée kuy seetaan télévision yi du ma wax télévision yëpp nag waaye li ëpp ci télévision yi nekk ci réew mi Sénégal plateau yi commencé nañ di def waxtaan waxtaan yooyu dañoo jàpp na sax mooy li gën a ëpp solo ci waajal journée culturelle Cheikh Mouhamadou Lamine Bara te ñi koy suivre ñëpp gis nañ ne booba léegi ay boromi xam-xam lañ yebal ci plateau yi am na ñoo xam ne suba war nañu dem ak gannaaw suba ci plateau yëpp ngir nan lañ mën a fexe ba xam-xam bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Lamine Bara lëm suñu borom baaxee ko ko waaye góor yàlla yi nga xamee ne ñu ngi leen di rendre hommage ñooñu ñëpp kenn ku nekk sa njaboot ñu ngi leen di jël ñuy dem ci plateau yi ngir waxtaanee li nga xam ne moo nekk ñoom loolu nag mu nekk beneen mbir moo xam ne moo tax dëgg-dëgg ñu naan njariñu journée Kitr journée Kitr mu ñu ko di wax ndax journée Kitr la ñu wax loolu nag yaakaar naa mbokk yëpp war ko ba di ñu ci Euh, plateau télévision yi dañu xaar ci seen YouTube yi xam ne incha allah rabbi lépp loo xam ne ñii nga xam ne ñooy parents yi ak ñii nga xam ne ñoom la ñu rendre hommage allah di ay góor yàlla kenn ku nekk sa njaboot dana ñëw participer ci émission yooyu def ñu ngir ñu mën a wasaaree seen xam-xam ñëpp gën ci mën a jariñoo loolu loolu mënu woon a ñàkk ñu leeral ko ndax yaakaar naa fi ñu toll àdduna bépp ñu ngi seetaan di ñaanal nag Cheikh Amadou Bassirou mii nga xam ne euh, mooy euh, moo moo mooy mooy initiateur bi di jàmbaar nga xam ne lii lépp gannaaw yàlla moom la alalam fekku ko jotam fekku ko coonam fekku ko ndax bu ko neexoon mën naa toog ne bàyyi ñëpp organisé waaye dafa xam ne sayyidu naas xaadimuhum kii liggéey nit ñi mooy seenu sang loolu mu gëm ko ci yent salancé di ko jëf kon moom te ñi ngi koy ñaanal sàkk mbooloo mi ak fu waaye mën a nekk ci àdduna bi nañ ko ñaanal yàlla sama guddal fanam wéral cëram ba lim fas yéene liggéeyal si xamante ne liggéeyal ko lu ko wet jot wasalaamaaleykum wa waaw kay sëriñ ko waxee léegi dañuy rendre la fii ñu dajee ay julli daje fi ay borom xam ñoo fi ay nit yàlla ñoo fi daje sëñ bi ne nañ profité ci occasion bi euh, ci ndigalu sëñ Cheikh Aziz mi nga xam ne moo fi teewal sëñ Moustapha Mbacké moom sëñ Sidi Mokhtar ak kilifa yu baax yi fi teew waa kër Maam Cheikh ak ñi fi teew ñëpp waa woon nee na mi ngi sàkku kenn ku ne jàng benn fatiha bu sell commencé bismillahi rahmani rahim jàng fukki lixlaas ak benn ñu tëjee ko salaam bi nabi ñaanal ko yàlla ñii nga xam ne ñoom la ñu rendre hommage ñu commencé ko ñaanal leen ko xam ne daa alxuraan tamit waaye daa bëgg ci bi ñu def lu mel noonu waaye fàttali ko la ci sëñ Abdourahmane Mbacké mi nga xam ne ñeent fi guddeem yaakaar naa ñu ngi ci ñaanal ko su borom su tey jii la ñu ñaanal ko su borom subhanahu wa taala barkeelu ko ci euh, jiitalaale ko ci li nga xam ne moom la ñu fas yéene ñaanal kon na kenn ku ne jàng benn fatiha fukki lixlaas ak benn ñu tëj ko salaatu ala nabi sëñ si Aziz tëj ñaan gi bu ko defee nag sëñ Jiili Abdou Aziz mën a ñëw incha allah ñu koy wasalaamaaleykum wa ngi nuyu mbooleem foo xam ne yaa ngi ci jotaay bi di ci jiital ñi nga xam ne ñoo fi teewal Euh, ñi nga xam ne moom la tuddee bis bi muy suñu maam seex Anta ak suñu maam Xaafiya Mbàkke bis bi nag mooy journée culturelle Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bi ñu tàmm def fii ci foire bi di ci fàttaliku nag nitu yàlla ko tedd Cheikh Mouhamadou Lamine baara di doom ci naa Ahmadul Xadim nga xam ne ku liggéeyal lislaam la ci tarixa murit ku liggéeyee lislaam la ci nit ñi waaye ku liggéeyee lislaam la ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku murit bu ne war nga koo fàttaliku waaye nit ku ne senegale bu ne war nga koo fàttaliku waaye ku bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war nga koo fàttaliku ndax liggéey bu yaatu boobu mu liggéeyoon bu mu fi jógee nag yàgg na lool moo taxoon Cheikh Bassirou mii nga xam ne mooy Cheikh Bass moom euh, Serigne Khadim aw Ba amoonu yéene xalaat bis bii di journée culturelle bi mu yóbbu ko ci kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci jamono yooya ñu bari ci doomi Cheikhul Khadim yi ñu ngi fi woon ñu àndandoo dem seeti leen waxtaan ci ñu am ci ndigal ci ñoom ñëpp ñëw ci ñi nga xam ne moom lañu ñu bokkal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara àndandoo ak ñoom sóobu ci liggéeyal ko boobaak léegi nag ku ne xam na ne diir bu xaw a yàgg la ndax bu fekkoon na tey amul woon benn gàllankoor tey dix-huitième euh, euh, lay doon waaye tey mooy quinzième édition bi moom nag moo ko xalaat euh, ba pare ànd ci ak famille bi yëpp am ci taxawaay boo xam ne nag at mu jot ku ne xam na ne dafay am ak yokk gu yaatoo yaatoo yaatoo rawatina ren ji ñu ñu ñu ñu ñu ñu nekk xam at yi amoon nañ ay gàllankoor lool ci jafe yi nga xam ne ne ci wàllum santé amoon na ci réew mi te suñu borom def ci xéewal ba ah, liñ ci doon ragal suñu borom fanqal ñu ko ñu siy ñaanal kii nga xam ne mooy sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla yàggal ko ci wéeru ko ndax taxawaayam bu yaatu bi nga xam ne amoon na ko ci eh, xew-xew yooyu nga xam ne jaaroon na fi muy ah, Covid 19 bi. di ñaanal tamit ñëpp ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi nekk ci réew mi ñoom ku ci nekk wàll nga nekkoon amoon nga ci taxawaay bu yaatu ngir fexe ba mbas moomu jóge fi. at mii nag mooy at mu njëkk ñu delluwaat ci euh, la ñu nekkoon di gën di yaatal liggéey boobu di gën di waxtaanee nit ku mag kooku ndax moom ba mu fi nekkee ah, ni ma ko waxee woon léegi rek ku fi nekkaloon lislaam la ku fi nekkale woon réew mi la ba li koy firndeel mooy bi mu fi bàyyi ko bàyyi fi ñenn ci ay doomam mën nañ cee tudd kenn ci mag ñi muy du sax euh, euh, xalifa Euh, Cheikh Mahamadou Lamine Bara ndax sëñ Modou Bara moo ko njëkk a wuutu muy suñu Abdou Aziz Bara mi nga xam ne moo topp ci moom ku ne xam na ne 1938 la njëkk a sanc ab dëkk muy Bousra ba ca topp mi ngi ko sanc 1948 kon jamono yooyu àll bi ku fi mënoon a am pas-pas wala am taxawaay bu mën a sanc ay dëkk yu ñu daan liggéeyal yàlla di fa jàngale ci jamono jooju 1938 loolu jafe woon la kon ñooñu war nañ leen di fàttaliku fu ñu toll loolu nag moo waral ñu ñu ñu taxawaloon bis bi di ko fàttali ko di ci waxtaan seen i jaar-jaar waaye di ci waxtaan lañ doon dundee ndax ku ne xam ne ne euh, dañoo feddil rek li nga xam ne moo fi moom la euh, suñu borom subhaanahu wa taala euh, yónni moo loolu taxoon yónnent bi ñëw mu yónni ko mooy defal yi ci xolu nit ñi ba nga xam ne nii dinañu am ak njub dina ñoom mooy ñoom liñ doon dund fexe ba nit ñi seeni jubluwaay lépp di diine seeni jubluwaay lépp di euh, jikko ju rafet kon nag loolu dafa baax ci jamono jii ñu ne ci réew mi waaye ci jamono jii ñu ne ci àdduna bi ñu mën di fàttaliku nit ñooñu ñi nga xam ne nii tamit ñoom lañ koy tuddee di ay doomi Serigne Touba ba ba mu jeexee ñu ñëw ànd ak euh, dugg ci ñi nga xam ne ñoom la Serigne bi bokkal tey moo waral kii nga xam ne rakkam joo xam ne kuñ xam la ci jege bi mu jege euh, Cheikhuna Ahmadul Khadim muy maam Cheikh Anta ndax ñuy gëstu ci borom euh, ci waxi sëriñ bi wax nañ ne sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne euh, maye ki la neex ki ma neex mooy maam Cheikh Anta may naa may naa ko li ma daan maye kon nag kooku ak cëram bu kooku bu cër bu rëy la ci ci sëriñ Tuubaa waaye ak cëram cër bu rëy la ci Sénégal gi ñu ne kon dina jaadu ñu mel noonu ñu fexe ba di ko wan nit ñi ci euh, ci ci jikko yooyu yi nga xam ne amoon nañ ko ba melo yi nga xam ne nii ku ne xam ne ne jamono ji ñu ne soxla nañu Euh, defarwaat soxla nañu jekkalaat toogaay yi ndax jikko yi nga xam ne mi ngi soppeeku soppeeku bu jéggi day ba moo waral bis bi ñu taxawaloon ko muy nag le 19 bi ñu jëm ah dinañ ci daan amal nag li nga xam ne mooy njàngum alxuraan moo daan euh, taw bis bi ndax mooy mooy mooy lépp ñun mooy ndeyu euh, li nga xam ne mooy jullit yi di alxuraanu karim ak xasida yi seexul xadim yi ku ci nekk ci réew mi ci daara alxuraan yi ak ñi nga xam ne fa la ñuy barab yi ñuy jàngee ay xasida Euh, Serigne Bassirou yónnee na fa ba ay junni junni euh, euh, nit ñu ngi dajaloo ci ay ay ay ay barab di jàng ay di jàng alxuraan waaye di jàng ay xasiida ngir ñaanale ko nit ñu mag ñu suñu mag ñu tedd ñooñu waaye ñaanale ko réew mi nga xam ne soxla woon na ay ñaan bu baax a baax kon loolu mooy li nga xam ne mooy yi lay bis bi bis bi nag am na ay organisation yu am solo yoo xam ne def nañ ko ci seen maam Cheikh tudd na ci dara mooy yor li nga xam ne nii mooy wàllu communication plateau yi nga xam ne ñu ngi koy def ngir di ci leeral ñii nga xam ne nii dara jaale leen bis bi waaye sëñ Baara mi nga xam ne tamit bàyyi na fi lu bari ci ay kàggu ci wàllum xam-xam ci bind loo mën nañu wax ne ci ki nga xam ne ku gën a bari lu mu gën a bind la ginnaaw Cheikhul Khadim kon nag euh, plateau yooyu ñu ngi ñaan ñëpp ñu di ko suivre ndax ñu gën a xam njàngal njàngale mi nga xam ne nii moom la ñuy moom la ñuy euh, moom la ñuy leeral ci ci ci bis bi nga xam ne nii mooy bisu si source ak rek sëñ Baara bi ci foire bi ñuy wax nañ ne euh, bis bi nag nam daan tëddee rek lay tëddee ci wàllum sécurité liggéey nañ ci bu baax a baax ci wàllum li nga xam ne nii mooy euh, li nga xam mooy xéewal yi Abdou Karim jiite na ci ci njëkk na ci wax ci ñi jiitu la mooy loolu noppi nañ ci waaye fi nga xam ne mooy barab bi nga xam ne fa la ñuy dalee la gan yi mooy tànt bi bi nga xam ne nii fa nit ñi di kilifa yi fi la ñuy daje loolu tamit noppi nañ ci kon nag li ñuy xamal nit ñi rek mooy la ca des rek mooy ñu ñu waajal ne 9 euh, heures le 19 ci suba la mise en place yi di commencé koo xam ne nag jot nga ci carte invitation yi baax na euh, mooy mooy mooy kon nag sëñ euh, coordinateur wax na ko carte yi dañu ko mujj annulé ndax daana am chaque année waaye jafe-jafe yi ñu ci daan am mooy tax ñi nga xam ne dañuy yor carte ñi ci ñi ci def jóge ci ay gox yu fari ndax farataal bis bi ñëw duñ mën a dugg ndax yoruñu carte te ñëpp bokk ci yem moo tax ko nag ren dañoo annulé dañoo annulé carte yi képp koo xam ne nii bis bi jot na le 19 boo ñëwee di nga dugg euh, gëstu li nga bëgg a gëstu dina am exposition bu am solo boo xam ne nii dañ ci def lépp li nga xam ne nii mooy ñi ŋànk bis bi mooy kilifa yi nga xam moom ko moom lañ ko dara jaale dinañ bind ci ñoom ba lu waay bëgg xam boo ñëwee di nga di nga ko xam ci exposition boobu ñuy wax nañ ne kii nga xam ne moom itam mooy Cheikh Bassirou ñu ngi sàkku ci kilifa yi nekk jotaay bi ñu ñaanal ko bu baax ndax bis bi ba ñu ko commencé euh, maa ngi koy wax ren la quinze quinzième édition bi waaye at mu jot moom mooy jël dooleem lépp loo xam ne war na ci bis bi moo koy moo koy financé lépp nag ngir euh, fi ko maamam toll euh, Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye fu ko yoonu murid toll waaye fu ko Sénégal tamit toll kon ñi ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal ko bu baax a baax ba sunu yi di ñëw di gën di mat comme ni muy ni muy ni muy mel nii ci at yi ñuy romb ndax bis bu set saa bu ñëwee dina dañu gën a am yokkute bu yaatoo yaatu ci li nga xam ne moom lañ passé woon kon nag ñi ngi leen di sant bu baax ñii nga xam ne ñoo jóge ci ay gox goxaat ñëw teewe euh, avant première bi euh, muy ay daayira muy ay ñoo xam ay ay ay kuréel ay association lañ moo xam ay kilifa diine lañ ñu ngi leen sant bu baax ci déplacement yi ndax xam nañ ne jotaay bi yàgg na ci sori na surtout soxna yi ñoom itam seen taxawaay di mas di yaatu te di ko ñu koy ñu koy mas di yaatal ci bis bi nga xam ne mooy bis Cheikh Mamadou leen baal di sant bu baax presse bi ñoom itam chaque année dinañ yaatal liggéey bi ba jubluwaayu li nga xam ne moom la ñu soxla nit ñi xam ko te du lenn lu dul euh, njariñ li nga xam ne ni suñu maam yooyu làmboo nañ ko ci ci ci ak ci lu baax làmboo nañ ko ci jikko ju rafet nit ñi mën cee jot surtout ndaw ñi nga xam ne nii booy ndaw ñiy doog a gane si àdduna nga xam ne li ñu xam ci lu mel noonu bëriwul moo tax ñu ngi ciy ñu ngi leen ci ñaax ñoom itam euh, ndaw ñooñu ñu ñu gën a jege si boo gën a yokk seen gëstu ci lu baax li nga xam ni ñu koy liggéey kon presse bi ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di sant ñëpp di leen wax ne rek kon xam naa ne bis yi ñu jëm si muy euh, euh, continuer organisation bi dañ ko ne réunion fii ci foire bi dinañ am na yeneen i ay liggéey yu ñu amal kon ñu ngi ci fas yéene ànd ak yéen rek